dafa am ñu tiit lool li leen tiitloo nag mooy dem nañu ba benn di sakkal yàlla koo xam ne moo ko bind di jël téere bi nga xam ne li gën a boole jullit yépp ak fi ñu mën a nekk muy alxuraanul karim waxuñu jàng gañ koy jàng di soppi baat ya walla waat ya waaye pirima moo gën a yéem yàlla nañu ci yàlla musal bokk yi kum neex walla mu soob ko gannaaw waxukaay daa yomb te ku wax ñu déglu ko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 day dem ba ay bëtam muuru ci xàmmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci